ci capitale administrative bu Sénégal oriental candidat bu Benno Bokk Yaakaar mu ngay campagne ci ab meeting boo xam ni ñoo amal ñoo di ay responsable yu fasantikoo nekk fii ci région bu Kolda Amadou Ba daan nañ ko dalal dig ab victoire. Amadou Ba est important pour le Sénégal parce que tout simplement lorsqu'il s'est agi de bâtir le Sénégal de construire le Sénégal pour qu'il puisse devenir une réalité il a fallu un architecte il a fallu un concepteur. Mais ce concepteur-là, c'est notre candidat, le futur président de la République, Amadou Ba. fi président Macky Sall jaaroon. Tamba nekkoon almet bi nga xamante ne moo ko taal. tey lañ la taal pour nga jël sa yoon nekk le cinquième président de la République du Sénégal. ñun ñëpp danañu doon benn say. àndandoo bokk ndey ak baay ci région de Tambacounda parce que tey c'est toute la région qui est là. beneen responsable bu Benno boo xam ni daal dina fësal yéenam ci ndaje bile mu di maître Sidiki Kaba. ci stade bu Tambacounda bile premier ministre bile daal dina waay ñoñam ngir ñu booloo woteel kii mu wuutu ci gouvernement bile. Nous avons un seul candidat. Ce candidat, c'est Amadou Ba, qui sera ce président par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Il sera dans la consolidation des acquis et dans le changement vers l'émergence. ca boram moom Amadou Ba di fësal lay mbëbëtam ma. Je sais que Tamba est préoccupé par son hôpital. projet boobu pare na le train de voyageurs va bientôt arriver. Falma avril juin liggéey bi tàmbali. l'émergence est li ko dalee Ourossogui ba Bakel jaar guddi rek Kidira candidat bu mouvance présidentielle mu ngi woyal campagne am yeneen étape yu muy dëgmal moo di Kédougou Vélingara ak Kolda.